ci euh, maître Ousmane Seye encore euh, kontaan nañu defe naa mën nañu àggali mari luy sànq euh, li ma bëggoon ñu mu tontu ci mooy est-ce que procès Khalifa Ababacar Sall procès bi dafa procédure bi dafa jeex. ah waaw man ci sama xam-xam procédure bi jeex na. Mhm. parce que matière correctionnelle bu ñu demee ba cour de cassation décidé. Mm -hmm. procès bi jeex xam nga amoon na fi benn débat boo xam ne mu ngi woon ci affaire rabat d'arrêt ñu naan comme def na rabat d'arrêt procédure bi jeexagul c'est suspensif mais cour de justice de la CEDEAO atte moom moo saisir cour de justice de la CEDEAO cour de justice de la CEDEAO jox ñu dëgg ñun avocat état bi ne woon rabat d'arrêt du suspendre procédure. Mhm. donc léegi mun nañu wax ne procédure xalifa Sall jeex. ah procédure bi mën nañu wax ni jeex na. jeex na tàkk d'accord ah. d'accord d'accord parce que man j'ai l'impression que jeexagul. voilà c'est clair. Mhm. Daouda. bon man man nag dama bëggoon ñu évoluer un tout petit ba mhm. parce que mënu ma ko mënu ma ko fee am. mu nekk avocat Cheikh Béthio Thioune. te amul ay question yu nga xamante naa ko ci posé mhm. euh, Cheikh Béthio Thioune yàlla na suuf oyof ci kawam te yàlla yokk leeram yàlla yokk leeram yàlla ko xare àjjana mhm. mais tey dafa am lu nga xamante daf may interpellé parce que tey jii avant muy génn àdduna je pense que la veille muy génn àdduna justice am na décision yu mu jël mhm. benn bi mooy condamné nañ ko à une peine ferme de dix ans en plus condamné nañ ko à des dommages intérêts de deux cent millions ak ñeneen ñu nga xamante ne ñoom la àndal. Euh, te li ma xam as tuuti ci droit mooy li ñuy woowee action publique nit bu génnee àdduna action publique ba euh, fay na daal. ça veut dire que dix ans yi nga xamante ne ko loolu moom naax saay na mais li nga xamante ne moom mooy euh, dommage intérêt yi nga xamante ne moom lañ tegoon ci kawam. dafay continuer di ko fay. waaw kon continuer di ko fay. moom nag moo tax ma koy laaj par exemple ci loolu nan lay demee nan mooy suite dossier bi ci affaire bi. waaw loolu taw de. Hmm. dañ cee accès gu. Hmm. li nga xam ne moom lañ mun a jàpp fi mu nekk nii. Hmm. mooy l'action publique là c'est éteinte par le décès. li nga xam ne nag mooy sur le plan civil. xam nga yoon dafa xóot. dégg naa ñu bëri di ci wax. may wax Sénégal ne dañuy wax lu ñu xam. moo tax laaj nag pour nga wax aussi lu ñu xam di bañ a wax seen yéene. affaire sëriñ Béthio bi war na ñeen lu bëri. avant yàlla ñëw ak ndogalam. lu bëri wax nañ ko fi. buggoon nañ ko dëkkal feneen. yàlla ñëw weddi leen ñëw indi ndogalam. misaal la mais malheureusement Sénégal surtout yàlla misaal bi. da laa demee ñu fàtte ko. Mm. donc affaire sëñ bi. li ma leen doon wax dama leen ne sëriñ Serigne la man taalibi Serigne Saliou la Serigne Saliou du du seexal ku matul seex. déedéet ca xalifaam bi yépp kenn la fi seexal muy Serigne Béthio ku dee jullit ka di murit ngay jullit boo xamee loolu war cee màndu Serigne Saliou du seexal ku baaxul. du seexal ku bon du seexal kuy def lu bon sama loxo ca kaw. weeru koor lañ nekk parce que man xam naa Serigne Saliou Mbacke. loolu Serigne Touba. mul xuraa. donc lii yee nañu tey. wallaay man loolu teg nañ ko boor ñu ngi commencé di wax norom dañuy wax lu ñu xam. te yenente jàmm. moo gën de. fii réew mi toll. waaw fii réew mi toll. dëgg la de. nañuy wax lu ñu xam. Hmm. di te jàmm. Hmm. affaire u droit boo ko xamul na ci maandu. Mm. ñun ay avocat lañ loolu mooy suñu métier. maintenant lan xam nga euh, damay wax benn affaire tey su ma neexee man avocat. Mm. bu fekkee ne njabootu Serigne Béthio ànd nañ ci. Mm. procès bi dañ koy ubbiwaat. te naka li ñuy wax révision du procès. mun naa am élément mais pourquoi. parce que yoon dafa ne. bu ñu la àttee ba pare yëpp jeex. bu amee li ñuy wax élément nouveau lu bees ci dossier bi. mun nañ ubbiwaat projet bi. bu ñuy àtte Serigne Béthio man avocat dañu indi dossier médical bu wóor teg ko ci loxo juge bi. ne ko yoon dafa ne. ki ñuy àtte contumace contumace. mooy ki daw. mooy kii xam ne dañ koy àtte. mu bañ ñu àtte ko mu daw génn réew mi. sëñ Béthio daw ca du daw. wallaahi ca du nit kuy daw. daa feebar. dossier bii kuñ ko jox nga xool ko war a xam ne sëñ bi dafa dafa dafa dafa feebar. ñu teg ko fee mel na ñun man avocat yam dëgg. mel ni sëñ jotu ko. mel ne médecin yi nga assisté yi assisté yi attesté ne dafa feebar dañu caaxaan man ku ma xam-xam ne man du ma waxoo caaxaan du woo ko xam nañ ma dans le barreau du ma fen parce que doomi aadama lu ma ko dossier bu ma yore dossier bu wóor la ñu atte ko comme ku daw loolu lañ ko atte ne non seulement dañ lay atte parce que daw da ngay daw feebaroo say avocat sax bu ñu wax mais maître euh, doguma la. non non bu ma dog. noonu lañ ko àttee. ba quartier jàpp la. teg ko daan yoo xam ne kuñ duñ joxoon Pape Cheikh mi dossier bi tey muy àtte Cheikh Béthio ci dossier boobu du ko tëj. kenn du tëj nit ci njort wala ci foog naa yoon daf ko bañ ba ne boo demee ba sa xel nekk ñaar danga koy bàyyi au bénéfice du doute amul kenn koo xam ne témoin la ci procès Cheikh Béthio ñu oo ko bu taxaw ne Cheikh Béthio ba ma def law dossier bi amul benn pièce boo xam ne boo ko xoolee di nga xam ne Serigne Béthio moo joxe ndigal pour ñu rey amul fa mieux lañ ko doon jiiñ procureur ba ba mu defee conférence de presse bañ ko jàppee Thiès dafa ne mun nañ jortu ne Cheikh Béthio loxoom génnu ci parce que otoom sax dafa takk deretu nit ñu def expertise bi ñu ne nañ leen def expertise deret bi muy nekk deretu xar deretu mala ñu ne kër gi Cheikh Béthio nekkoon xeex bu mel nii mënu fay am ca déggul ay bali fetal jip nañ faw ak bruit bi war na ko dégg ñu ne nañ def reconstitution des faits ñu defaat reconstitution des faits ña fa nekkoon yëpp ñëwaat policiers yi ñëw gendarme yi ñëw ña doon xeex ñëw taxaw defaat xeex ba dañ ko defee woon ñu dóor ay balu fetal kër seex Béthio sept hectares la fii ma Médinatoul Salam nit ñi nekk biir kër seex Béthio néegam fa nekkoon ñu sox bal fa yëf yi amee woon kenn déggul bal yi ñu ne nañ ubbi palanteer yi ubbi bunt yi soxaat ay bal kenn déggul dara et kii wàcc na sox setal nañ ko yëbul te nu malgré tout saa ñu condamné ko yàlla wàcc ak ndogalam dañ ko condamné altine talaata yàlla jël ko ci jël boobu boo gisee certificat de genre de mort bi mooy feebar bi ñu waxoon ne moom sëñ Béthio daf ko feebar looloo ko yóbbu alaxir loolu du élément nouveau mu leer ne bu fekkoon ne gëm nañ ñu te amul benn raison ñu bañ ñoo gëm parce que ku dul wax dëgg mooy fooge ku kii wax ne waxul dëgg bu fekkoon ne gëm nañ ñu ne dafa feebar duñ ko atte duñ ko atte dañ koy excuser dañuy xaar ba mu dellu si waat pour ñu atte ko loolu la yoon wax comme atte nañ ko ci kaw erreur ci kaw bañ a ñàkk gëm kayit yi nga xam ne mu leen joxoon ca kayit yooyu yàlla leeral na ko nit sax leeralu ko yàllaa ko leeral leeral <laughs> mais élément nouveau la bu ñu neexee ñu boîte procès man maa dox loolu. moo ma bëgg laa non xaw ma dañ xaw ma dañ ko def duñ ko def aw ma ci ndigal. Mm-hmm. damay bugg wax ne. bu ñuy wax ëllëg nañu wax lu ñu xam bu ñuy wax affaire yoon nañu wax lu ñu xam parce que yoon dafa sew mais li nga xam ne moom moo am importance li nga xam ne moom lañ mën a jàng mooy Sénégal nit ñi nañ yenente jàmm nañuy wax lu ñu xam affaire sëñ Béthio bi firndeel na ko mais dafa amoon acharnement ci